di ci dem Dubaay bu gën gisee ñu naan carré dañuy jaay jaay maa ngi nii génn da ci xaalisu jàmmoor yi la ñuy jël di ko yóbbu Siin di ko yóbbu yóbbu Dubaay ñi bokk ci natt bi nee nañu mënuñoo fexe ba teg seen xaalis maman dafa créé benn groupe boo xam ne moom rek moo ciy wax kenn du wax ci ñoom. ba pare dafa am ñeneen ñoo xam ne ay suqulan ñoo nekk ci ginnaaw daal leen bu ngeen wóoluwul maman waa bàyyi leen war a ngeen génn yaa ngi dégg xaalis bi daan natt ko daan jaarale ci Xadija wala Fall wala Cheikh Ibra jëkkëram ay preuve yu leer laa yore ma maman Virgène nag laa bëgg xaalisu njàmboor bi mu joxe ko tas natt bi parce que ñi nekk bitim réew dañoo soxla seen xaalis dinaa live tey teg ay bëlëf yu leer nañ fii xaalis dañ koy liggéey kenn du jël xaalisu njàmboor yi di ko dajale di dem Dubaay di jënd ay yére si di jënd ay yére di dugg ci àdduna bi di dem fu nekk ñu foog ne yaay liggéey xaalis bi nekk ay nattu njàmboor moom ngay jël di ko passé di si def say propre moyen loolu dina fi jeex fi ci réew bi live incha allah rabbi ci kanam ak victime yëpp nag laa wax wuy ma victime yëpp ci ay preuve yu leer nañ maman vulgaire da ngay mën a live am goloo live waaw wasalaam ba ci kanam